ndeysaan sama rek sama xarit <laughs> Balla Balla na ma naa Pape mais maa ngi lay fay jeune frère tey mbégte la tey ma ñëw fekk la fii ci King Fat lan moo waral teewaay waaw Amadou sama nijaay la Amadou sama xarit la Amadou moo yar ci usine ñaari tali fa ma juddoo muy koñu bagaar usine ñaari tali fa la juddoo Amadou ak sama nijaay Zal Ñing ñoo bokkoon école bokkoon classe depuis école route depuis mu yar ma nag usine kon tey bu wootee ak sama sœur Thérèse Faye Diouf sama wareef mooy ma bàyyi lépp ñëw teew waaw. tey euh, acte bi mu def tey. ak ñi nga xamante ne ñooy ax lu làmb. signé de euh, signé leen loo xamante ni presque mat na 500 millions pour jàppale ko yi. acte boobu tey naka nga ko gisee ak lan ngay wax. mais c'est un acte très noble. parce que Balla euh, làmb industrie la. làmb facteur de développement la ñi ciy dund sax mënuñu ko xayma jaaykatu caaf bi da ciy dund jaaykatu ndox bi da ciy dund balekat bi da ciy dund ba ki nga xam ne day garder scooters yi wala oto yi dañ ciy dund waxatuma laak nag côté presse bi ñi nekk ci administration bi ñi nekk ci écurie yi c'est un ensemble kon tey état bi bu ñu defee lii dégager budget bu toll noonu pour tàmbalee ko ànd ceeg FONGIP jàppale ko promoteurs yi je pense que acte bu noble la donc euh, vraiment maa ngi koy saluer di ko rafetlu trop trop trop. Sénégalais lañ lan leen mën a xaar ci Pape Diouf ndax ku ne xam na ni. réew mi xam na ne ndaanaan nga. les sénégalais de la diaspora xam nañ ne ndaanaan nga yàgg ngaa jël. drapeau bi di ko yóbbu ci yeneen i réew. yan lan mën a xaar ci Pape Diouf. ci la ñu nekk loolu ci la ñu nekk ci ci la ñuy nekk à vie donc. Euh, album Superman Love gis nga ko génn na bi mu génnee aussi sénégalais yi dañ ko accueillir vraiment sentir album bi consommer ko bu baax donc album bi nag euh, Baye Balla mi ngi def euh, waaw kii nag mooy tonton Sidi Diakhaté suma xarit la suma tonton la lamb ju mu mës a def ça fait 15 ans daf may invité ma ñëw cees nit ku baax nitu valeur responsable donc Baye Balla euh, album Superman Love bi mu génnee gis nga ne def na chemin ñu ngi dem fu nekk partout dans le monde donc vraiment di ci kontaan di saluer aussi sénégalais ni ñu ak yére album bi vraiment ak cœur ouvert. Mm-hmm. sama doom dafa bëgg Superman. ndeysaan da koy way ba mu jeex ndeysaan nu mu tudd. Daba Mbuub eh Daba boo jant ma doon Superman yaa ngi sama wet kenn du ma daan <laughs> def naa la sama soxla sama soxna. sama number waa sa tonton Pape Diouf dundal dundal dundal. yaakaar naa ne keroog euh, sa teewaay ci biir euh, Bantamba TV am na solo tey. waaw am na solo wax dëgg yàlla ndax euh, keroog émission bi àdduna yëpp ñu ngi ko doon seetaan ngeen may ñu opportunité bi jox ñu chance bi ñu ñëw toog fa discours ci làmb wax ci lépp lu war a jëmale làmb kanam te moo waral ay gaaf. gannaaw bi ñu discouré wax dafa mel ni kilifa yi dégg nañu teg nañ benn paa dañ leen ñaan rek ñu gën continuer ko ci nu mu gën a gaawee. Mm-hmm. tey promesse bi yàlla dogal na ni tey fii la confirmé nañ ko fii ci King Fahd. Mm-hmm. tey cinq budget cinq cent millions génn war a jëm ci promoteurs yi. Mm-hmm. tey propos yi nga xamante ni tegal nañ leen ko yéen promoteurs yi propos yu leen arrangé la wala. waaw déglu nañ proposition yu ñu tegal wax dëgg yàlla yu ci bari. ñoo ci waxtaanoon ba tënk ci kanaa kay ñaar rek lañ ci dégg loo xam ne point yu bees la pour ñun ñu ngi koy door a dégg fii tey muy lu jëm ci affaire dossier sponsoring ak euh, euh, affaire assurance loolu moom ñu ngi ko fi door a dégg xaj na yooyu dañ dem waxtaanaat si ba tënk waaye daal leneen lu dul loolu moom lépp promoteur yeeg ñoom waxtaanoon nañ si ba tënk. ñu ngi lay jaajëfal maa ngi lay jaajëfal baax baax baax jërëjëf. tuuti ma jël président président maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. président tey yaakaar naa ne tey am ngeen euh, mbégte tey. ci daje bi nga xamante ne daje ngeen ko fii ci King Fahd. sant yàlla bu baax a baax. Mhm. am nañu mbégte. Mhm. Euh, ndax nit amul dara lu dul yaakaar soo yaakaar yaakaaree bi ñu teg ko sa kanam yaakaar naa ne yaakaar bi alhamdulilah comme ni nga koy waxee. Mhm. kon promesse bi nga xamante ni tey jii président de la république def leen ko diggoon ca palais tey confirmation bi leer na. waaw confirmation bi leer na tey def nañu protocole bi yëpp d' kon nag amatul lu ñu waaj amatul lu ñuy wax président lu mu waxoon ak ñun respecté na ko defal nañ ko promoteurs yi. propos yi ñu tegal euh, promoteurs yi lan nga ci lan nga ko gisee. waaw nu ma ko gisee rek mooy am na lu ñu wax promoteurs yi donc yaakaar naa ne loolu ñoom nañ ci jàpp parce que il faut ñu am ñu ànd ak ñoom ci sponsor bi pour ñu mun a respecter lu ñu wax waaw parce que làmb aussi jël xaalis jàmbur finance ko yaakaar ko ci billet loolu day métti. waaw donc il faut ñu am accompagnement. 40 millions ci promoteur bu nekk te normalement durée bi da nga ko war a fay ci un an loolu du du métti ci promoteur bi. waxuñu 40 millions promoteur bu nekk. ku nekk ça dépend li ngay fii ficelé. ak li nga soxla nga demandé. mais foofu lañ ko fixé. waaw du dépasser loolu. du ñu duñu du loolu dans en premier temps loolu la ñu wax waaw.